I'm not going to Yeah. di defal ñëpp jàmm saa yi ak bàtt yi ñu ngi jubal baax di balu ak ñëpp. di ñaanal waa quartier bi suñu borom bàyyi leen fi ba yéene gi am liggéey ko Serigne borom defal nañ ci lu kawe seen yoon mu borom di leen gën a kattanal at muy ñëw rek mu gën a neex te yàlla bu kenn manqué mbokk ki am na ko mën na ko yàlla ko defal ñëpp di soññu mbokk taalibe rek xam naa ay timis incha allah ñu daje kafe ga su ma defee ñu yegg tanin bu ñu wàññeekoo tanin nag li des ci guddi li maye waat ah, ko fii ci cappi bi ba suba incha allah kon na ko gaa fa saal ñu ngi tubaab bu baax a baax a baax di jégal waa daanaka lépp ñoo ko war di leen ñaanal suñu borom kattanal leen bàyyi leen ku ci mel ne Mbaye ñoom Mbaye Ablaye ak bu ma limee sax damay jiw ñoom Mbaye ak ñoom Fallou ñoom ñëpp barke suñu tubaab di leen ñaanal suñu borom kattanal leen su ko defee ñu jox Abdoulahi rek mo mbégte barke borom daara suñu mbégte bi ñu àndal borom daara doo ko mën a seedeel daam yow amuñu soxla si yow barke Sëriñ Tuuba di la ñaanal suñu fan wér gu yaram ni asamaan mu téye si max yàlla mu liggéey si fexey noonu barke Sëriñ Tuuba daam da ngaa oyof lépp ñu la soxla muy bëccëg muy guddi muy naaj muy sedd lépp da ngay si yitte yëpp jël si quartier bi ñu waa quartier bi am am ñu sa fay Sëriñ Tuuba am ñu Sëriñ Saalu rek da lay bàyyi rek waa Eunou Café maanaam seen mbégte mi ñu àndal xawuñu ko barke borom Touba lii dafa rëy ñu amuñu la suñu bis bi képp ku ñu jàpp rek képp ku ñu képp ku jàpp ne jàppal suñu bis bi liggéeyal Serigne Saliou bi kese moom la fi dese ndax bu xool bis bi maanaam teel a da dëpp gi ndax 4 jours la guddi seebre journée xasida si ziar dem Touba tey mooy mbégte bi daa mooy nga nga def lii daa tax Serigne Touba bëgg nañ si yow bëgg nañ si yow lool mais kàddu yi lopp nañ si lopp ak ñoo jëw nañ suñu xaarim egg la bi ci mbokk tëri ba tëri ñu bàyyi xel ba ko teew ñu leen di jaajëfal bu baax a baax leen dogal ñu leen gënal jàll xam ci barke Seexul Xadiim mu mel ne maa sha Allah yéen a ko gisee nii waa ahlu café bu taari bu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi ci bopp ba léegi Serigne Dambé ci pour la maa sha Allah tarkala mu doon yëkkati ci di lu mu doon bay Seexul Xadiim doon tàgg doon tàgg waaye nag bàgg na ma jàmbaar ci Serigne Fallou Mbacké ci ci Babacar Borom lañ ko doon amee fii ci quartier Serigne Saliou Mbacké maa sha Allah